internationale. C'est l'info internationale. abonné ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. asalaamaaleykum mbokku yi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di seneinfo point net suñu chaîne YouTube Seneinfo International. ak suñu différentes plateformes yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax ci teewlu bi ngeen ñuy teewlu ñu fas yéene nag séq waxtaan ak maître Cheikhna Ahmed ay dara moom juriste la nekk spécialiste en droit public li waral nag bile eh, jataay moom mooy kàddu yi nga xam ne Cheikh Hadjibou Soumaré nekkoon fi premier ministre ci nguurug Abdoulaye Wade moom moo ko yëkkati muy ab lettre uvert bu mu bind di ci sàkku nag njiitu réew mi indi ay tontu di ko laaj ndax dafa jox ay koppar lu toll ci douze millions d'euros ab personnalité politique loolu nag jur coow lu rëy boobaak léegi euh, maître xam naa balaa may euh, dugg sax ma bàyyi la kon nga nuyonteeg mbokk internet yi. waaw salaamaaleykum wa maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci tur ak di la nuyu monsieur Diouf di nuyu bi nga xamante ne ni ñu ngi ñuy bàyyi xel man maa di euh, spécialiste en droit en droit laaj bi nga xam ne Cheikh Abdou Soumaré laaj na ko njiitu réew mi ndax dafa jébbal lu toll ci douze millions d'euros ñu xayma ko ci sept virgule neuf milliards de francs CFA ab personnalité politique française ndax li ni mel mën nañ ko jàppee accusation waaw xam nga tout d'abord balaa ñuy eh, ñëw su loolu sax dañuy jaar ci benn mbir ba pare soog a ñëw leeral loolu ndaxte comme niñ ko xamee rek euh, Sénégal dëkku dëkku yoon la mhm. dëkku droit la te aussi dëkku liberté publique la Mm-hmm. ndax liberté publique yi dañuy wax ne liberté euh, liberté d'expression mooy wax li nga xalaat donc mm-hmm. constitution bi ci jëm boppam bi nga xam ne mooy la charte suprême moo ko may bépp citoyen boo xamante ne nii am na loo xamante ne nii mu ngi koy xalaat wala mu bëgg koo laaj wala mu bëgg koo wax mm-hmm. mu wax oto dara du ko ci fekk donte ne liberté boobu nag dañ naan liberté conditionnelle la mooy na fexe ba sànkuwante li ngay wax nga sànkuwante ak bu mu bu mu nekk trouble à l'ordre public wala bu mu nekk loo xamante ne nii yoon da koy tere mhm. kon liberté la liberté d'expression lu ñu nangu la fii ci Sénégal nit ki li mu xalaat mu wax ko monsieur mhm. Hadjibou Soumaré c'est un citoyen sénégalais avant tout mais aussi moom ancien premier ministre kon am na droit bu gisee loo xamante ne jaaxal na ko ci mi mu laaj ay laaj mhm. mu laaj ay laaj ndaxte lettre bi nga xamante ne nii bind na ko monsieur le président chef de l'état monsieur Macky Mhm. lettre la boo xamante ne dafa ñëw di ko laaj ay laaj mu nekk quatre questions yoo xamante ne ñi kat laaj na ko ko ñenn ñi gis ne mën naa nekk offense au chef de l' état ñeneen ñi ne mënul nekk offense au chef de l' parce que man ba ma jàngee lettre bi ba pare gisuma fi ñu naan une accusation directe. ok dafa ñëw rek di ko laaj ay question yoo xamante ne nii bokk na si parce que du question rek euh, koppar yi nga xamante ne dañ ne président jox na ko Marie Le que ñenn ñi dañ ne Marie lay waxal. waaw moo tax moom mu ngi koy def mu ngi def benn comparaison. Mm-hmm. entre li Macky Sall bindoon ba muy jox Marie la Pen li nga xamante ne nii mooy euh, dédicace ouvrage am bi. Mm-hmm. ak li nga xamante ne nii moom moo nekk ci lettre bi. Mm-hmm. kon su ñu gisee ay question rek la ko laaj yoo xamante ne nii tout citoyen a le droit mu demander ko ki nga xamante ne nii mooy njiitam kon mën nañoo wax ne foofu accusation bu fekkoon dafa ñëw nekkoon ko daan yow yaa jox Marie la Pen nangam. la ñuy wax ne kat il l'a accusé mais dafay ñëw di ko laaj ay question yoo xamante ne nii. le chef de l'État na see tontu vraiment. est-ce que nekkul est-ce que nekkul le fait que euh, donte question la mu tudd mu tudd ab montant benn montant bien déterminé est-ce du peut-être loolu moo tax mbir mi xaw a niru mbirum tiiñal wala. waaw montant bi douze millions d'euros mu nekk sept virgule neuf milliards ci suñu xaalis ci suñu koppar dañuy jàpp ne montant bi amul solo lool parce que comme ni ma la ko waxee moom c'est une personnalité moom Hadjibou Soumaré. Mhm. c'est une personnalité. international xam na hmm. li nga xamante ne nii moo mooy mooy daw au niveau international te tamit ay nit lañ ñoo xamante ne nii ils sont bien xamante ne nii euh, Marie Le Pen ku mel ni Marie Le Pen suy déplacé wu ñëw Sénégal forcément dina am ay retour si ñoom ñi nga xamante ne nii ma mas nañoo pratiquer l'État wala mas nañoo nekk ay personnalité ay ay ay administrateur au niveau international forcément kon dinañ ci am ay ay ay retour ay yoo xam ne ay xibaar yu ñuy jot kon kon kon bu ma la déggee euh, euh, da jàpp ne euh, wala wala boog da ànd ci ni jàpp ne peut-être dafa am kon dafa am peut-être ci li mu tënku daal ci li mu wéeru ba mën a wax li ni waaw kañ loolu man laa jàpp parce que bu ñëw rek def ay du ma wax accusation mais ay question la laaj. préciser aussi montant bi waxu xaalis rek mais dafa wax na douze millions d'euros. effectivement neuf milliards. kon man ci li jàpp question bu mu am na su lu mu wéeru pour mën a laaj loolu. mais nag donte ne deful une accusation waxul ne yow yaa ko def. mais dafa ne juste ñu apporter ko ci li nga xamante ne nii moo di ay explication ay réponse ci loolu noonu lan lan lan la doon lan la doon mhm. euh, tey mu war a wuy ji ci ab convocation bu sûreté euh, urbaine mhm. ana tey peut-être lan la ñu mën a xaarandi ci mbir moom maanaam tey ana ana maanaam daal lan la ko euh, lan moo ko ci mën a fekk waaw li ko ci mën a fekk comme li ñuy wax rek wàllu yoon moom souvent su yu demee nii surtout boo jëm boo waxee jëmale ci chef de l'État ici au Sénégal dañuy daal di wax euh, li nga xamante ne nii mooy mooy offense au chef de l'État mooy kii dafa tooñ li nga xamante ne nii mooy le chef de l'État parce que le chef de l'État lu ñu mën a wax rek moom mooy moom mooy njiitu réew mi mm-hmm. moom mooy incarner la présidence de la République te euh, présidence de la République institution la banxaas la ci banxaasu ci banxaasu réew mi mm-hmm. donc euh, foofu da ngay gis ne article quatre-vingt bi li mu fa ñëw wax dafa leer de même que article deux cent cinquante quatre bi nga xamante ne ni moo nekk ci code pénal bi dafa wax ne l'offense au président de la république par l'un des moyens énoncés que ce soit moo xam rajo nga ko defee moo xam télévision moo cinéma moo xam presse et cetera est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cent mille francs à un million cinq cent mille pour l'une des deux peines ou l'une des deux peines seulement c'est-à-dire mm-hmm. que tey bu demoo bu demee sûreté dinañ ko déglu mm-hmm. dinañ ko laaj euh, laaj yi nga xamante ne ni moom laaj na ko si lan la wéeru pour mën a laaj laaj yooyu parce que mm-hmm. ay laaj la du ay accusation bien sûr dañ koy waxaat tey dinañ ko laaj foofu yow foo si tënku su fekkee na ñoom dañuy jàpp ne ah lii y a pas assez gisuñu si loo xamante ne war nañu téye ko procureur bi war nañu téye ko pour def enquête dañ koy jox noolu yëpp mu dem ñibbi këram su fekkee ne nag gis nañ si ñoom loo xamante ne nii dañ jàpp offense la au chef de l'État la wala trouble à l'ordre public la loolu ñoom mën nañ koo téye ngir ngir présenter que devant le juge xool lan la ci juge bi di wax mhm. waaye nag ay ay notion la yoo xamante ne nii dafa nekk ci droit te définiruñu ko comme li may wax rek ay trouble à l'ordre public ay offense au chef de l'État énuméré ñu lan la wala définiruñu ko de façon claire te des notions yoo xamante ne nii c'est ambiguïté moo si ne souvent hmm. juge bi wala procureur bi moom mooy moom mooy xool avec son intime conviction ni mu ko ni mu ni mu gisee situation bi rek mu qualifié ko hmm. soit hmm. offense au chef de l'État la wala wala wala wala trouble à l'ordre public la yu demee noonu procureur bi wala juge bi souvent moom mooy xool rek de part euh, ci situation bi moom ni mu koy caractériser ay notion la yoo xamante ne nii y a pas une définition quand juridique bu si bu si taxaw Eh, tey euh, bu ma doon laaj peut être ana tey yow euh, lan ngay peut être loo ci mën a xaar tey comme tey mu dem euh, comme li nga wax ñu déglu ko maanaam gis ne daal jarul ñu ko si yóbbu ci yoon wala yi demee noonu wala wala safaan nga ñu déglu ko yóbbu ko tey ana yow loo si gën a yaakaar peut ban décision moo am ci. man moom li ma si gën a yaakaar wax dëgg yàlla parce que Sénégal réewu réewu droit la réewu dëgg la te tamit réew la moo xamante ne nii dafa respecté. mën nañ ne les libertés individuel voilà te tamit li mu wax lettre bi ku ko jàng da ngay gis ne deful une accusation directe ba tey rek di wax ne yow président Macky Sall yow dañ ne yaa dafay toujours wax ay questions terminé ko par des points d' interrogation donc c' est des questions moom sa wax na ko ci lettre bi hmm. mënoon naa jaar par la voie légitime c' est à dire dem ak assemblée nationale poser fa question yi mais on voit que souvent député yi du ñuy faral di wala chef de l' état bi faral kon mu jaar par li nga xamante ne nii par une lettre adressée à lui en plus lettre bi chef de l'état la ko adressé voilà donc ce n'est pas quelque chose boo xamante ne nii euh, am na ay accusations directes kon man li ma fi jàpp mooy duñu ko téye duñu ko téye bu demee on va on va l'écouter bien sûr parce que c'est une personnalité koo xamante ne nii il a eu à pratiquer l'état en plus fonctionnaire international la woon donc donc bu bu ñu gisee ay yenn information mu laaj ko dinañ ko dinañ ko laaj moom tamit yow te lan nga wéeru ci lan nga tënku ngir lii ngir laaj li nga laaj ci lan nga tënku pour laaj lii nii mhm. man jàpp ma ne dinañ ko si dinañ ko si defal li nga xamante ne nii mooy mooy acte yi dëgg la euh, maître euh, Cheikhna Ahmed Tidiane Aidara ñu ngi lay jaajëfal kon voilà merci monsieur Diouf ñu lay jaajëfal yow tamit di jaajëfal itam mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel euh, saa su ne suñu différentes plateformes yi kon di leen jox euh, dig daje rek lu yàggul dara ak beneen invité. jërëjëf.